joxe titre yi moment donc tey mhm. tay ji euh, di mardi 24 septembre euh, dafa am euh, nouvelle boutisse, tiis bu dal suñu kaw mhm. muy professeur Amadou Mahtar Mbow dafa dal di génn aduna ñu kay jalé ay mbokkam diko jalé ñep ñëpp si 103 ans mhm. voilà dinañ si dellu si waat xam naa après moment dinañu andil image yi ñu kay jalé ñep donc dila nan tamit temps yépp gis nga li xew Sénégal bien vrai que dama fébar mais euh, dama ma ngi documenté wu bu baax voilà image yaa ngi ni machallah donc yal na ko yàlla xaaree àjjana xew nga ba si kanam voilà ñu ñaanal ko bu baax a baax di jaale mbokkam yépp mhm. voilà donc moom légende la fii Sénégal donc je pense que le Sénégal est en deuil waaw mhm. ah, fu mu toll nii moom euh, war nañ ko ñaanal bu baax. Ah, waaw waaw ja jaaru jaaru nit ñi. yàlla xaaree ko àjjana Sénégal nekk euh, en deuil mu nekk aussi légende boo xam ni euh, mag la goo xam ni ku am njëriñ la. 103 ans macha allah nekkul waaw waaw. yàlla may ko ñu bëri ñu bëri am na ñoo xam ne boo dundee plus de 100 rek. Euh, li li li li sama li li sama li sama sama waa ji waxoon sama papa ja coon euh, Seck coon Balago c'est-à-dire boo dundee lu ëpp yonent bi dundoon loo ko teg bénéfice la. macha allah waaye nag euh, la en tout cas ñu ko ñaanal yàlla bu baax a baax. bu baax di yàlla yërëm ko fa suuf si kawam si barku sang-sang yi njaboot ju ma bàyyi ginnaaw itam yàlla teg ñoom loxo. macha mel na xolu muñ itam si barki yonent bi en tout cas. xëy na si kanam waaye nag jaam ak pexem yàlla ak dogalam. bilaay mhm. bilaay gis nga Sénégal nu mu doyee war gaal bi nga xam ne dafa daal di teer